What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Sama guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. Uh -huh. Yeah, they call me Azu, huh? Ah. Azu from Rio. They call me Vito. Amadou Gadiaga sama gars bi laa koy may quoi gars yi ñaan dédicace quoi mais ñu samay gars lañ quoi dañu ma dajeeg man ci mbedd bi di ma bëggee foog ma bëggee leen tu vois di ko may Pape Dieye Ibrahima Ndaw di ko may Modou Modou xam ne tey jii ma dig di jël si fi la may fekk quoi yéen am seen moo di ko may sama gars yëpp bon sama gars yi tey je vais parler d'un sujet boo xam ni je vais parler de di ko may grand doy sama cool grand bu toog nii ah di ko mm, di ko may sama gars yi daal bon tey je vais parler d'un sujet boo xam ne tey jii ça va parler de Moustapha Diakhaté maa ngi ko taxaw APR tu vois loolu la wax ne moom lay def tu vois parce que frondeur la gars yi génn ko affaire yi noonu quoi mais man ce qui me fait le plus mal mooy maanaam tey jii ñoom dañu jàpp sénégalais yi quoi au lieu mu créé manko taxawu sénégalais yi wala manko taxawu coono sénégalais yi mu ay guerre de positionnement seen parti boo xam ne tey jii c'est mal structuré tu vois ay manko taxaw APR yow Moustapha Diakhaté nga dugg bi APR nga génn APR APR structuré ñun on s'en fiche amul ñu benn njariñ seen guerre de positionnement yooyu xamuñu ñu lu ñu bëgg violence yi am ci dëkk bi nii ngeen wax ci violence yi am ci dëkk bi nii fekk benn américain ko rey ko jël xaalisam tu vois te foofu tamit may may may may may may may may may gën a joxe gars yi ñu jëlee fa benn message quoi tu vois un jeune américain mu ñëw Medina Baye di ko agressé jël jël deux millions cinq cent am ak trois mille dollars am mu jixaat jixaatu nafsi ba ñàkk bakkatam loolu am na message bu muy lancé xam nga ban message lay lancé mooy sénégalais yi nañ jóg bañ a ñàkk fayda tu vois bañ a nangu benn groupe minuscule nekk ci kaw di def lu leen neex sénégalais yi nañu xeex mbajum kanam moo koy borom boppam tu vois donc booy boobu yàlla na ko yàlla teeru kii si àjjana vraiment c'est un vrai guerrier te joxe na exemple quoi ne nit ki sa da day jaral xeex mais c'est dommage que fii seen alal nit ñi seen alal jarul leen xeex nit day nekk ci kaw def lu ko neex isant fil baax na tant que ñu ngi yokk yàlla ñu yàlla may ñu kenn ne fajal say problème yàlla dafa pare xel bu muy joxeel xel la pare si ñun bu fekkoon yàlla dafa dafa la nit lu yomba wala muy fajal nit yonent bi dem xare Badar di di xeex kon yonent bi naan malaaka yi ñëw rek bi mais yonent bi daa donné l'exemple dem xare Badar mu xeex comme que yonent bi moo dem di jixaat isnfil ñun a ñëw di taxaw di fi ñi si kaw xam ne defuñu fi dara ma ñëwaat si Moustapha Diakhaté donc Moustapha seen guerre de positionnement yi ñun ça nous intéresse pas que tu sois dedans ou le parti ne sera jamais très bien structuré xam sera jamais très bien structuré parce que yéen vous êtes venu au pouvoir par défaut par défaut ngeen ñëwee pouvoir man je ma je Fatal ma toog dégg Sénégalais yi naan euh, ma Sénégal beaucoup ko bëggee da ngay dem campagne ci àll bi àll bi ngay dugg c'est tout faux c'est pas vrai loolu ku ko wax je le défie Macky Sall lobby moo ko fi teg c'est la lobby française qui est derrière lui ñoo ko ñoo ñoo ñoo ñoo ko fi teg dugal àll yëpp jàllal ay Fatick jàllal Fatick jàllal fu la neex dëkk bu la neex àll bi jaar fu la neex. yaa ngi ak say camion si t'as pas une main derrière amoo lobby lobby bu la jox ay milliards wala amoo lobby boo xam ne moo la pousse yaa ngi doo am dara man je rappelle tey jii deuxième tour deuxième tour présidentiel bi Macky nekkee këram mais tubaab ñoo fa nekk di oote si région yi soo waxee ñun la euh, kii c'est acquis euh, comment euh, di nga ko gis français ñoo nekkoon këram di ko wax ne ko lii c'est acquis tu déjà président donc Macky français ñoo ko fal nii nii loolu falu fan fii Afrique pour nga falu il faut que mu am ay blanc yu nekk sa ginnaaw Israël di la push pour nga défendre seen intérêt du Macky chaque jour mi dem tey ji si Macron Israël di ko jaamu Macron di ko di ko tegal les règles du jeu donc politicien bu fi yaakaar ne ñëw dugg ci àll bi nii dugg si ay néegu ñax wala si ay kii nii tu te trompes électorat boobu falu leen ay lobby mooy falaata fii yàlla yàlla les blancs qui sont là-bas di teg seen i leen teg ñooy fal pour que tu loolu la beneen affaire bi mën moy euh, li Sonko di def conscientiser nit ñi révolution Là, nga président comme Sonko man ci président révolution révolution am tu vois la population soit consciente que ces brebis qui sont en haut on doit les comme ni Algérie def ni façon euh, président rek Afrique lobby bu nekk sa ginnaaw français di la di la booster yi ils défendre seen intérêt moom un réveil populaire boo xam tey gars yi ñooy jóg ne ñett doyal nañ ci doyal nañ ci kii bi doyal nañ ci ci genre politique bi donc loolu moo am donc arrêté ngeen toog fi naan Macky Sall si àll bi la dem Macky Sall c'est un président par défaut c'est un très grand président par défaut isant fil am programme wala du nag seen parti bi mënul structuré parce que amu vous êtes venu bëri par accident bi ngeen nekk présidence gëmu leen ko donc parti bi naan dañ koy structuré rek yooyu noonu bàyyi ba heure bi deuxième mandat ñun on n'a pas besoin de ça parce que yéen muy yow ay Moustapha Cissé Lo yéen ñëpp animé par des choses yoo xam lan seen i intérêt Moustapha Cissé ko jox sàncee gerte gi yow on t'a destitué nekkatoo assemblée amatoo ay xaw lan président parlementaire tu fais bruit naan ay frondeur ak yooyu noonu foutez-nous la ngi fiy bëri caga ji mi ngi fiy bëri bëri ñaan gi ni tuleeg male géwél yi découragé xamatoo géwél xamatoo géer ñëppay dóor de haut en bas ñëppay dóor ah kaw la commencé may wax beneen moo a métti mooy tey jii ngeen jàpp Guy Marius teg ko naan Guy Marius Sagna dafa dem palais Saint-Ville ñëw nii ak nii ak nii nii waaye man damay laaj man damay laaj quoi question maaleykum salaam soxna si man li may laaj mooy yow yow nga maanaam nga fekk pétrole boo xam ne askan aka moom askan moom moom pétrole bi askan benn askan moo ko moom nga ñëw jël six mille milliards nga lay fay ay nga ko deux contrats sama sama dëgg ci dëgg dëgg dëgg ci tànkam loolu moo gën a salte un un comment dire un citoyen bu dem ci benn buntu palais jàpp grille bi ne monsieur le président li ngay yokk ne askan bi antalu ko mais loolu moo gën a salte la moo gën a salte dem nga ne ah? bàyyi ay booy ñuy pourrir ci ñuy pourrir ñuy pourrir ci prison bi ah, ndax ray bëy wala sàcc kaas Cheikh sek violé avec des preuves nga libéré ko gracier ko Jeanville eh, di diko di jox dund ak ay jabaram mais loolu mo gëna salté dem buntu pale japp japp gri di di di manifesté wu han ah? la mo gëna graw tay japp Khalifa Sall japp Khalifa Sall jean Jeanville nek do nek président parce que lan c'est un potentiel adversaire nga ne ko yow caisse maire bi da nga def ay ay ay ay ay malversation dama lay japp tej té avant Khalifa Sall avant dama jàpp dama jàpp booy may ma ñew may ma ñew dama jàpp booy dama li may laal président mo tax nga may nga may dag jean Jeanville la moo gën a ñaaw loolu boo jàppee boo jàppee boo jàppee boo jàppee Khalifa boo waaw même même ñëw damay bàyyi ma développé waaw ma développé bu yàq sama émission même daa ko développé waaw tax dama la naan kafe ñëw yaa ngi boo gën a jàpp Khalifa Sall ne moom lu mu doon def doon sàcc xaalisu xaalisu kees gi da nga war a jàpp Pape Diop dem jàpp Mamadou Diop ancien maire yëpp nga jàpp ko teg ko loolu moo gën a salté dem ci buntu gris dem ci buntu gris ne courant bi ñuy yokk sénégalais yi antaluñu ko l ah, monsieur le a salté la moo gën a salté tey ji monsieur le président Youssou Ndour ñëpp di fay impôt Sidi Lamine ngeen ko daan jël santage parce que daan dénoncé problème euh, problème mu ah, mu dénoncé problème mu sénégalais léegi yow nga jël ko torturé ko ba ni Sidi Lamine di génn euh, àdduna yàlla ko yàlla xare àjjana Youssou Ndour bi ñëw kolew sa côté du fay impôt loolu moo gën a salté dem bu buntu gris ne Sénégal courant bi ngeen di fay nii antaluñu ko donc y tellement de salté yoo xam tey da ngeen ko définir affaire ni la nu après ba jàppale ma Ibou après nu mu si ñëwee jàppale ma ngir yàlla bala maa daaneel après nu mu si ñëwee sax man xam nga xam nga nu muy kii quoi bon jàppale ma ne fi di sonal nit ñi amu leen dara yi sonn nit ñi daw ba dee ah jigéen ñi kër goo dugg benn repas am amuñu lu ñu fayee courant ah te loolu sax sénégalais ñoo ko def sénégalais ñoo doon manko quartier bu ne agence sénégalaise bu fa dugg gars yi ne la eh bul dugg suñu kër jël facture génn taal na kenn fayuñu ñëpp boycotté ngeen moom nit ñi yéen li ma gën a métti nag li ma gën a métti mooy li ma gën a métti mooy li ma gën a métti mooy da ngeen jël ay xaalis jox ko ay député yoo xam ne ay 4 4 1 million 300 ñu fay 1500 impôt police bi jàpp gars yi di dóor police bi xoolal oto yi ñu yor oto yooyu pour xar la pour xar ils ne sont pas bien équipés mënuñu dàq bandi sax jàpp ko mais oto yi ngeen jox député yi oto yi ngeen di jël di ko jox député yi yooyu noonu mais jox leen ko policiers yi qu'ils soient bien euh, euh, kii équipés ah wala nga jox ay sapeur pompier ah jël oto yi oto policiers yi jox leen oto yoo xam ne tey ji jël poulailler yi si lañ yóbbu seen nen ngeen jox ko policiers yi jël ñoo xam ne tey ngi assemblée amuñu benn njëriñ ñu fa nekkee mooy lan Macky Sall loi bu mu indi rek ne leen voté leen ñu voté ko loolu moo gën a salté dem buntu buntu nag monsieur le président li ngay def nii sénégalais yi antu luñu ko

te ngeen bañ a attardé wu ay maanaam kii frondé naa kii frondé wul yéen yow mosala jox de boo frondé on s'en fiche boo frondé on s'en fiche parti bi du parti vous êtes venu par accident tubaab bi ñoo leen jël fal leen Macky Sall di jaamu tubaab yi lu wax moom lay lay def tu vois bu baax bi xam ngeen ko booy bu ndaw bi nekk Casamance waaw Sonko jàppale leen ko ñu ne restauration ñu def ñu indépendant ndax Sénégal ba indépendant wul ba indépendant wul rek di suiveur di topp rek di topp rek topp rek lañ rek di mbëkk dem si tubaab bi moo tax li sama sama président Sonko lu ma phrase boobu moo ma gën a neex si at bi Sonko bu ñu ne ko booy dañuy dem di mbëkki mu ne il suivre les ressources les loolu la quoi daf sonn nekk fi dee si jàmm quoi tu vois même affaire rek ngeen ñuy tànkal ñu ay parti bi baaxul parti bi Moustapha Cissé Lo ñu yëngu ne nii doo leen dara yéen yem yërëm yërëmu leen Sénégalais yi seen poste ka leen ñor lu leneen nag sama gars yi doo bi abonné ma la coono maa ñëwaat